samedi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre bi ñu génn ci ay booru la le bu Thiaroye jot ci xibaar gi kuy wuyoo Elu Kersa Fall gendarme à la retraite amoon ay juróom-ñaar fukki at la ñu gis néewam ci biir néegam. ci yenn xibaar yi ñu jot ab fetal la ñu fekk ci wetam fetal boobu la ñu ne moom la tiimale ci suufu gémminam daal di koy dóor boppam baab balu plomb bënn ngaam yi ba yegg ci yuur gi. ci noonu la ñu ne gannaaw ba takk deri jotee ci xibaar gi dem ci këru Elu Kersa Fall fekk ko ci néegam. deret gi wër ko nooyeetul police def liggéeyam jébbal néew bi hôpital Dantec mu def autopsie wam laataa ñuy jébbal néew bi ay mbokkam ngir ñu denc ko bu ñenn ñi naan moo faat boppam xel di wéy di ñaaw ba tey ci lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci waxu ay mbokkam ak i jege ñaaleem Elu Kersa Fall gendarme bu fonkoon liggéeyam la woon nit ku ñëpp seddaloon jubam ba waral ñu dénkoon ko ci liggéeyam wàllum payooru gendarmerie nationale atum 1995 Elu Ketsa Fall dem à la woy di toppatoo fukki bant ak ñaar ko yàlla dénkoon ak fësal mbëggeelam ci tarixa murit gi mu yàgg di ndamoo paafal ni ko waa koñam ak ndaw yi doon dàqantale nekkoon polygame bu yemale woon njabootam foo ko mosoon di gis réewam nga doon njëkk di seen ndax jàmmam ak tabeem ndéem si yàlla Ketsa Fall ci seede ay mbokkam kenn xamelu ko woon benn tolof-tolof bu war a tax ñu njort mbirum xaru doomam bii di Mbari Kersa Fall di ñu xamal ne waajuram bu góor lu dul feebaru tension sonalu ko woon te bis bu muy génn àdduna moom doom ji dem na ba ci néegu ancien gendarme bi nuyu ko saafante ak moom balaa mu koy tàggu liggéey ci jàmm ak doy waar di wéy du jur xel ñaar ci bopp askanu Wakhinane 3 ci arrondissement Thiaroye Gare gannaaw bu ñenn ñi di xalaat sax mbirum faat bakkan bu ñuy jéem a soppi xaru ñenn ñi di laaj lu waral gendarme bi jëfee lu ni mel waa polisu Thiaroye ñoom ñu ngi wéyal seen l'enquête ngir leeral dëggantaan lu xewoon ca néegu Elu sa Fall laata muy faatu